salaamaaleykum mbokk internet Sans Limites TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen ànd ñun dellu si waat nañ seen émission bi tey ñu dalal ki nga xamante ni mooy Serigne Bada Kéemaan euh, di marabout de la jeunesse tiktoker ni muy woowee boppam sëñ Bada ñu ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyoog waa Sans Limites waaw salaamaaleykum salaamaaleykum kumba am ndey kumba amul ndey dafa xew ci réew mi maa ngi leen nuyu Sans Limites di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa àdduna bi di nuyu mbokk yi mooy suivre ci internet yi mm-hmm. waaw mais eh, sëñ Bada sëñ Bada yow yaa def sa live yekk ma loolu la neex te ba sëñ Bada yow sëñ Bada kan moo la njëkk invité si wàllu site internet ak yooyu baalu weesoo TikTok bi. non yow la tiñeelu ma la dañuy waxtaan ku la njëkk invité. non yow yow maa la fekk sa kër. daaw non mais non dama koy wax non xam naa parce ma koy wax. parce que <laughs> xam nga dama la koy wax. xam nga xamoon woon yaa mais xaar ba ngay teg sa live xaar ba ngay teg sa live. bada bi ngay bi ngay teg sa man est-ce que yow sëñ Balla woo nga ma téléphone mais da parce que nii moo def yow en nga ah, téye sa ah, a sax loolu moo tax ñu indi la fii nga toog yaa ngi dégg mais sëñ Balla ni da am reconnaissance xasuma la yow sëñ man maa la fekk sa ruq bee du sax mais maa la fekk nga toog ma ñëw génnee la ba sénégalais yi commencé di la xam surtout ci côté YouTube bi. parce que xam nañu si taw mais la si YouTube bi. ma génnee la ba tey yeneen si di la woo. Mhm. mais tey sa live di ma saaga ndey. Hmm. après ay non non sama waaye nga jégalu naa. ah waa jégaluwaatal waa jégalu waa sans limite parce que man nii sax dans les normes la fi indiwaat. waaw mais waa sans limite sans limite moom. waaw xam nga ne moom ñoom toppewul ma dara. waaw parce que man. Euh, ñëpp xam nañ ne. Hmm. man duulkat laa donc damay wër di dul rek donc moo tax ñoom xam nañ ma yow yaa ma xamul mais ñoom toppewul ma dara man sénégalais yi toppewul ma dara. <laughs> yow yàlla si boppam toppewul la dara. alors léegi bu ñu ñëwee ci coow li hmm. euh, wàllu plainte ak police ñëw na sa kër ak ñëwul si ko yooyu dinañ ci yow mais balaa loolu euh, sëñ Bada lan moo waral ay mbiri jigéen rawatina ay Mame Ndiaye Savon ay Mamy Cobra nga ñëw rek dugg si lu waral loolu. góor laa moo tax. sëñ Bara yow da nga doon faral ni ñaan ay jamono nga ni yéen mën a yëngu ah, ci wàllu ñaan ci dara ñaan moom ku ne mën na ko jigéen na mën na góor mën na ko di waaw loolu la noonu la demee da ngaa laaj dama laa tontu waaw góor lan nga mais tontu naa la góor wat bang laa yow yéen relation nga am ak Mame Ndiaye Savon waaw relation jàmm euh, ak teraanga loolu kese ah noonu seq ma moom parce man xamante ba léegi teraanga rek nañuy jëflante wax dëgg yàlla teral mhm. mm, moo nekk fa mu ñëw ñu ne ko kii mooy daal di ne moo jox ma numéro sëñ Bada Kéemaan moom amul sax sama numéro moo jox ko ko mu dugalal ma xaalis. waaw hmm. ah, may ma fa xaalis wax dëgg yàlla teral ma teralaat ma invité ma nag ci keebaa sekk bi amoon daaw euh, Grand Théâtre moom fa njëkk a yóbbu man yooyu mosuma cay dem sax. Hmm. ma dem mu teral ma may ma xaalis solal ma yére. Hmm. jox ma jasneer donc sama xarit la te boobu yàgg naa wax ci moom di ko défendre te boobu man xaw moom xaw ma. Mhm. noonu la demee loolu ren seq ma ak moom. Mhm. ñu bari daal. Mhm. léegi euh, bala ñuy ñëw ci diggante. moom rawatina càgga ji ah. léegi euh, euh, maman Vulgaire mi ñu doon tax dimanche bële gis ñu fa maam Ndiaye Savon. xëy na sax moo waral coow léegi détails yi. loolu dinañ si ñëw mais ma Vulgaire gis nañ ni ah, macha allah gis nañ ni démb xaw ma barki démb vidéo mi ngi circulé. mu ñuy laabaan ak yooyu daal mbiri sénégalais yooyu ndax nga gisee. tax beeg ba ci egg si laabaan beeg yooyu. xam nga Ouzin ak laabaan yi fësal daal. Ouzin mhm. am na laaj yoo xamante ne yow waroo sax dima ko laaj parce que réew mi. Mhm. ñun sénégalais yi duñ ay dof. Mhm. nit munoo fee taxaw. ne man dañ ma violé bi ma amee 16 ans. amatoo ndaw. nga am jëkkër pare jóge ci loolu. am far copain ngeen ñamante guddeeg bëccëg. yaa ngi may dégg ñu xëy takk la ban la takkee ba pare nga waroon a def sa xew toog noppalu nga ne da laabaan wala léegi jéeg yi ñooy laabaan ah. waaw bu ñu yàpp waaye Ousseyn jàllal ci leen bul ma laaj loolu waaye sëñ Malick Sarr bi dafal naag waaw mais fii ba fii ba mais dafal naag mais yow lan moo la leer ni xëy na émission bi la woon wala émotion bi ak jàppoon mu wax loolu mais ku ñu violé moom dans les normes moom war ñu wax waxuma la sax violé mais violé ak ñamante guddeeg bëccëg gu metti génnal mm. ci loolu mm-hmm. ah lii bu ñu yàpp léegi euh, Mame Ndiaye Savon ñàkk teewam yow ndax woo nga Mame Ndiaye Savon ni ko ndax demoo ci takk beeg yooyu. comme sa xarit la non ma ko woo di ko laaj loolu parce que moo ko defee yàpp ko. Mhm. Mame Ndiaye Savon personnalité am toll ci réew mi. Mhm. booy def sa te yëgaloo ko du ñëw du fa jaar parce que bu fa ñëwee bu fa tojee kaa sax moo la tooñ. Mhm. te it Mame Ndiaye leen loolu teraanga rek la leen ji. wax fa dëgg yàlla. mais saytaane yi nekk ci digg bi la. saytaane yi nekk ci biir moo tax moo indi coow li lépp parce que man maa fi taxaw ne problème mu Dakar waa dakaaru ko war a lijjanti mais waa Diourbel seen yoon nekku ci waa Xombal waa Thiès seen yoon nekku ci looloo tax ca caga ju bari génn di mer ah di ma sonal di ma woo téléphone di ma message di ma booleek booy ñu xëy su ñu xëy di ma taf di ma saaga ah lu nekk ñu si dugg mais man dëgg rek laa wax. Mhm. kenn ku ne mais kenn ku ne na lijjanti sa problème parce que kenn ku ne am nga loo doy. Mhm. xam nga ñu bëri fii dañoo jàpp ne nit ñaa ngi leen seetaan di leen suivre barke Sidi Birame Fall ñu jàpp ne xamul leen dara. barke di Birame Fall am na ci loo xam ne su ma génnee wax ko maa ngi koy wax ba ba léegi gars yi dégguñu ma de su ma génnee wax ko réew mi tàkk. nga ni. Eh, Ouzin xanaa xamoo ne Thiès la sama kër papa nekk. yow barke Seydina Mohamed Thiès la sama kër papa nekk Thiès dama ko téye maîtriser ko. Mhm. Ouzin man damaa mën. li may def man damaa mën. mais mais lan mooy lan mooy mën ay problème jàmbur nga dugg si mbiri jigéen nga dugg si loolu mooy mën. non ma dugguma ci dañ ma ciy boole. parce que kama la ci boole. non ma ciy boole parce que ci réew mi laa dëkk. mais coow li kan moo coow li kan moo la ci boole. parce que Mame Ndiaye sama nee na moom eh, amul jotu di fay nit pour mu yàq nit. mais da ngaa mos a gis fu ma fayee. yow waaw. ah mais gars yi dañu tuumaal loolu. non non non koy woo jox ko xaalis mu def mais non non dañuy waxtaan sëñ Bada. waaw dañuy waxtaan rek non dañuy waxtaan rek ma ko ñaari yoon léegi nii ñëw naa nga may sorko sorko maa ngi ñëwaat di nga may ma xaalis na génn preuve bi mais li ñuy wax taal seeni live mm. yaa muy dégg naan sëñ Bada kéemaan Mame Ndiaye Savon koo fay ah nangam ak nangam ñi ngi may tooñ te loolu diffamation la man sax amaana yàlla def na du ma topp ci yooyu parce que man chaque jour booy di ma taf di ma saaga te ñu ci réew mi musuma cee porter plainte kenn man doxuma ci loolu quoi. Mhm. mais bul ma tooñ nga ne ñu bëri ne nañ sëñ yàq na xaritoo bi diggante Mame Ndiaye Savon ko yaa ko yàq. na gën a yàqu. nga ne waaw na gën a yàqu parce que man moo ma arrangé man coow coow day am moo ma arrangé. mais coowul jigéen sëñ Bada. waaye yow. ba pare et puis nga naan ko ay nga naan ay waa Thiès ak waa Dakar yow lu tax nga bëgg a séparer ak Dakar waaw parce que duñ benn. ci sa dara benn la non du ay kilomètres la. problème mu maman vulgaire problème maam Ndiaye savon lu ma ci mënul keneen mënu ko ci. Hmm. parce que man maa fi ne maay Dakar te man fekk naa ci lu bari. mais ñi nga xamante ne nii dañuy def euh, diviser pour mieux régner loolu laay wax nañu arrêté ko parce que yow mënuñu laa yëgal xew. Hmm. nga war a dem ci xew bi parce que kaw ka la yëgal xew bi séqoo leen dara te it ka nga yëgal xew bi ci liggéey nga ko xam. mu am jëkkëram bis du tuut borom lay tollool bis nit bu ko amee da nga ko war a fonkle boo ko fonklewul daanaka mën na la faa jaaree bàyyi parce que bis moo toll noonu. Hmm. muy def lu toll noonu yëgal la ko yow nga war a ñëw ñëwuloo ba pare ba xew bi jàll nga taal sa live di wax ci xew bi ak ci diggante boobu mais loolu saytaane la. ah ñoom ñaar parce que Sidi Biram Fall loolu saytaane la. Hmm. parce que yow boo mënee dem nga dem boo mënul dem nga noppi loolu lañ la wax mais yow demuloo ba pare di wax. loolu dafa ñaaw c'est honte. Mm. mais ñoom euh, Mame Mame Ndiaye Sakho dégg nañu ko aussi mu ne wax na wax na ak Mamy Cobra téléphone ba wax nañ ba tënk li ko jaaxal ma naka la ñuy waxee ba tënk kii di def kii ñëw roj toog après def live am di attaqué. bay wax ay plainte man solo yoon nekku ci man kooku. Mm. tudduma turam sama yoon nekkul ci moom. Mm. mais damay wax actualité li xew ci réew mi. nan bàyyi affaire naafiq yi. maam Ndiaye Savon chaque jour li ma koy conseillé dama koy conseillé man ci suuf laay wax mais duma wax ci kaw man loolu laay interdit te maam Ndiaye Savon ci jeg ji fii gisuma kenn ku ko mën a conseillé parce que moo mook ñoom du ñu benn. maam Ndiaye Savon mi ngi sëy sëyam yor jëkkëram di sëy ñi nga xam te ne sëyuñu nag yaa ngi may dégg ñooñu mënuñoo wax kenn sangul parce que bala ngay digle sangu day fekk yow nga sangu ba pare falaa wax. lu fi lu fi lu fi yàqul lu la moo ba ñuy xaritoo ñëwoon ni ko bàyyi non ban xarit nga fi gis maam Ndiaye sama amul xarit ku dul jëkkër non Mamy Cobra xaritam la wax na ko si live Moussa Faye xaritam la woon Moussa Faye rek mooy xaritam amul xarit mi ngi ànd nga bëgg a jékki rek yow bëgg a viser maam Ndiaye sama tafu ci xaritam bi wala moom moo la def xarit maam Ndiaye Savon du sama xarit mm. xaritoo wuñu mm. mais dama koo bëgg te yàlla tax parce que dama koy xoolee sama yaay man sama yaay lu mu am tey jomam moo ko may ginnaaw yàlla yaa may dégg. Mhm. mu nekk femme de brave doon liggéey di def ni Mame Ndiaye Savon ba mhm. amal yëfi boppam moo tax ma bëgg Mame Ndiaye Savon parce que li muy tegu dafa leen Mame Ndiaye Savon bu ko neexoon bañ a sëy ñoom ñi lii ñu nekkee nii taxawaalu gu metti gi ñu nekkee nii ci réew mi di dem ci plateau yi di ñaan ay otoog yu kenn xamut Mame Ndiaye Savon mënoon na ko ah. Mhm. yow naka nga mën a nekkee jeeg ah mel ni nga war a mel sëñ bi te doo sëy. ah mais sëy nag sëy mbir yàlla la nag sëy moom mbir yàlla na moom. gis nga li ma xam parce que ay mbiri yàlla li ma xam su ma ko waxee fii toj. yow lan nga xam sëñ Bada. barke Sidi ma poussé yow ni nga leen di menacé nii yow est ma li ma xam su ma ko waxee réew mi yëngu. ci ci ñoom ci ñan waa Thiès wala waa waa waa waa. waaye Ousseyn bàyyi ma waay. xombal ak Jurbel ak fépp réew mi dama koo téye sama loxo nan bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee. bu seen bës wàccee ñu fay. xamuñu nu ñuy def ñu commencé gën di attaqué parce que fi mu toll dañoo fay ñu ngi wër live yëpp di di fa dugg man démb booy vidéo yu ne leen may envoyé ñuy wër live di dugg parce que xam nañ ne fi mu toll sëñ Bada Kéemaan dafa poñe réew mi boo ko tuddee wala nga laal ko nit ñi dañ dañ dañ lay xamaat noonu la demee. nan hmm. bàyyi seen caaxaan yi ñuy def. Hmm. Hmm. mais mais mais mais benn mbir yow euh, Mamy Cobra ba nee na ñu ngi lay woo jotuñu la yow da nga daw nii wala. non man du ma daw wax dëgg yàlla parce que réew mi am na yoon. te man wóolu naa sama sama sama dëkk. wóolu naa ko baax wax dëgg yàlla. Mhm. parce que man ku ma xam-xam ne man président Macky laay topp. kon rafetlu naa liggéeyam dëkk bi am na yoon man su ma la tooñee boo ma yóbboo ci yoon yoon def liggéeyam na ko waree su ma la mënee jégalu balaa ñuy egg foofu sax damay taxaw jégalu la mais tooñu ma parce que tudduma turu kenn. tafuma kenn li ñuy wax yëpp dañ may suuf dañ may tuumaal naan ma damaa taf seen foto damaa tudd seen tur déedéet demewut noonu ñoom kay ñooy tudd sama di teg samay vidéo mais man waxuma ak ñoom. Mhm. sama wax la nga maa ko sànni ku ko for yaa ko bopp. mais yow déglu nañ say audio yu moom yu muy teg ñu ngi doon live keroog. waaw parce que Adamo moo ma mhm. woo. Mhm. di wax ak man instant boobu maa ngi dallu. xaw ma sax lu ma koy tontu. li may wax mu naan ma maam Ndiaye Savon xaalis bi mu lay yónnee di ngay yàq nit affaire yooyu mu naan ko. comprendre nga. léegi nag audio yi la jël transfert ko jox ko Mamy Kobara Mamy Kobara di live ko. loolu la demee. Mm-hmm. mais man waxuma moom. tudduma turam. Mm-hmm. turam léegi euh, plainte bi ñëw na ñëw na say loxo wala ñëwagul. non gisaguma plainte wax dëgg yàlla. Mm-hmm. su ma gisee plainte tamit dinaa wuy si parce que Sénégal laa nekk mënumaa rëcc policiers yi dama leen a mën a rëcc policiers yi nga xam ne foo nekk xam nañ ko. ñëw nañ sa kër yow policiers bala ñu laa woo sax dañuy xam fi nga nekk ñëw nañ sama kër dañoo fekk ma dem entraînement. ban heure la ñëw sa kër. non 17 heures. est-ce que yëgoon nañu ñëw nga yoxos génn. non barke alxuraan man chaque 5 heures damay dem entraînement géej laay nekk loolu ñi may seetaan ñi may topp ñëpp xam na loolu chaque 5 heures géej laay léegi ñoom bi ñu ñëwee ñan ñoo ñëw waa dig ñoo ñëw wala cyber ba tey nag mënu ma laa wax police parcelle moo ñëw mënu ma laa wax dig moo ñëw mënu ma laa wax cyber criminal moo ñëw parce que wër naa ci police yi dem laajte mhm. ña fa ñëw dañoo ñëw laajte ma violemment dugg forcé bunt yi ah bon waaw sama saal nañ bëgg parce que sama yaay loolu la ma wax man fekkuma fa dugg ne ana sëñ bala ñu leen sëñ bala nekku fi ñu daal di dem bàyyi lu ma fa këyit neewuñu tamit bu ma ñëwee naa wuy si eh, ci ci police nangam nee naan maire bi daal naa wuy si bu wuy si wut doon ko jël si man nga waxuñu ma leneen man nga fu may dem xanaa dama war a xam fan laa jëm. Ah sama chef de quartier mi ngi sama koñ su ma su ma joxee kayit ma dem wuy ji. wa illah bu ma argina wooyee wala chef bi woo ma damay dem wuy ji parce que ndawal buur buur la. Hmm. te je les respecte très bien. Hmm. ku la ci woo kuré da war a dem wuy ji looloo yoon parce que hmm. def ma lu ay tux bu ma dara lu bon. damaa wax rek ba dugg ci guuta mais yow li ñu da ngaa wax ba dugg ci guuta yow li ñu jàpp leen mi ngi bëgg a bëri de suñu bada wax mais c'est normal parce que damaa weex donc moo tax dugg ci problème jàmbur ah waaw non comme réew mi comme ñëpp rek man dëgg dëgg ñëpp xam ne ne xarax naa tuuti saytaane damaa damaa xaw a saytaane hmm. maanduwuma hmm. looloo may tooñ et puis nit ñi tamit dañ may dugal waaw ah, lu ngay nangu lu yow tu es yow magum jëm nga am sa jabar am sa doom yow sa kër di joxe sa dépense yow ay ngay nangu ay ndax ay nit di la dugal seytaane daa bëri doole Ousseyn. yow corrompu bi ñuy wax asuru dëgg. parce que doonu mën a nga dugg ci ay problème jàmbur sans xaalis sans dara xanaa boo demee sax ba dugg ci problème jàmbur tey ñu plainte la si suba nga duggaa ñu plainte si gannaaw suba boo mënul ñàkk ba ñu dugg booy dugg si xanaa nañ la fay nga am ci tuuti intérêt Ousseyn xam nga yow rek maa bëgg a tëjlu parce que lii ngay def monsieur le juge da koy seetaan ak procureur waaw sans limite la de. waaw non dama lay wax. waaw te buñ ko déggee mën nañ jàpp ne loolu dëgg la. Hmm. non man question laay posé jant bi te li hmm. wax dëgg yàlla. Hmm. man kenn fayuma kenn corrompo man damay wax te yàlla tax parce que je suis le marade du peuple mën nga maa tëj mais sama làmmiñ kenn moomu ko. lu tax nga bàyyi ñaan yi ak faj yi. damaa wax dama laa bàyyi ñaan yi da dégg man damaa. bàyyi ñaan yow koo ñaanalati. ah mais booy ñaan mais dig la ca ngaay ragu. yow ndax nga bëgg a ñaanalee nit yi ba pare chaque instant yaa ngi ci live yaa ngi dugg si ñuy xuloo ko dugg si problème bu jàmbur Abi Ndour bàyyi woo Abi Ndour bàyyi woo digganteem ak Viviane bàyyi woo kenn Ousseyn respecté ma nga quoi ah, loolu fee la man kilifa réew mi maa ngi ñaan maa ngi def ni mu war a def maa ngi ñaan ni ma war a ñaanal yow lañ ma teg fii sa mission di ma wax ay waxu gone mais dafa daal mais yow si ñan ngay ñaanal koy ñaanal koy ñaanal sëñ Balla ah? koy ñaanal lan ngay ñaan daal yow looy ñaan mais yow lu sooyoon sama ñaan waaw mais suñu bar yow koy ñaanal mais boo bëggee ñaan si nga ñëw ñaan lu koy lu sooyoon yow ma ñëw si yow nga ñaanal ma yow waaw yow loo may ñaanal yow kon yow da nga maa xeeb nii yow loo gis man nii da nga ma xeeb kon moo tax ma invité sa plateau waaw non demal ndànk da ngay seet bul jóg yow da nga ma xeeb moo tax ma invité sa plateau waaw da nga yaakaar man daal tekkiwul dara laa damay wër ci réew mi léegi man da ngaa mën a seet man loo ma gisal man fii laay toog di la seetal ah Ousseyn respecté ma tuuti waay non non respecté ma waay non non sa dara bu bëri bi sama waay nga mais nag sëñ. maa ngi jégalu waaw dëgg la waaw toogal ñu tëjee émission tiit tàngoo police yi ñëw sa kër moo tax nga tiit nii instant na nga toog fenn toogal waaw toogal ñu daaneel émission bi ñu si cet bi. non non léegi sëñ yow seetkat nga yaa wax nga wax da mën a seet léegi ma loo gis man Ousseyn moo fonto waay. non non non non parce que Sidi Birame Fall bu am naa ñu ma xam sëñ Mbada xaar am naa ñu ma xam ñoo xam bu ñu ma fixé dañ may wax lu doy waar. Ousseyn man sama seet li gën a ndaw cent mille francs la. eh boo ko amul du ma la seetal nga may taxaw di ma wax ay waxu kasaw kasaw nii bàyyi ma waay. looy seete looy seete non non Ousseyn bul tax waaw ma jàmm waay non noonu sëñ Bada Kéemaan la ñu dalaloon. Euh, ñu baal euh, loo ko gisal. non non man ñooñu lu may wax ci ñoom parce que ñooñu wax nañu féetewoo bàyyi leen foofu ñuy wax. ndànk ah. sëñ Bada da nga mën a ñaan yéen bi bu fekkee ne télé Ousmane Sonko la ngeen wax ma ko. waaw mais lu tax nga ne télé Ousmane Sonko la non damay ñëw au lieu ngeen laaj ma ci président Macky Sall ci Amadou Ba xam ngeen fi ma féete ngeen may laaj ñoo xam ne tekkiwuñ dara booy boobu lan la fi tekki kooku nga xam yow sëñ Bada nga naan yooyu réew maa ngi koy bu un million et eh, ma laaj ci li am xaaral si dinañ wax ci ne kenn waxatul ci ñoom ay yàqkat nan yàqkat yi yow sëñ Bada fi nga taxaw yow di xeexal yàqkat yi nga tourné sa bés tey man dama ku la jox xaalis yow jamono jooju damaa ragaloon rek parce que jamono jooju Ousmane Sonko daa poñe woon réew mi téye ko boo waxee loo war a wax ñu duma la toogal toogal waaw micro bi nga xëcc mu jege la tuuti. non non. waaw xëccal micro mu jege la ñu eggale émission bi xëccal micro bi nii defal nii micro bi waaw xool sa loxo defal nii micro bi mu jege la voilà a laaj ah, a faj mën a ñaan wala nga laaj ma ci maxu suba teel sax waaw d'accord ah. kon kay yow grand ah. onze trois cent onze bi lan la si wàllu baatin nee nga xam non loolu du maa la koy wax parce que ah non mais non mais. non yow xamoo ci mbirum cëriñ dara. waaw mais wax dafa bëri façon te wute. waaw am na ñu jàng am na ñu jàngut. jàngoo kon. non yow loolu sa yoon nekku ci. ah mais. non non Ousseyn bu fekkee dañ laa fay pour ma ñëw fii nga may rëdd. ku may fay du ma ko nangu dañuy def émission. def nañ émission pare nan nan ñaan wa salaam. waaw d'accord ni ngi may laaj ñooñ ñëpp man intéressé wu ma. parce que kooku seen njiit ci boppam ma nga ca kaso ba ñu téye. Cap Manuel mm. te du gaaw a génn. Mm. yaa ngi may dégg après 2035 dañuy xool ay dossier parce que yàq ay yàqkat ñii nga may wax nii ñii ñii ay hmm. Bassirou Diomaye Faye yu tamit. mais Bassirou Diomaye Faye gisoo gisoo ne mën naa jël réew mi. waaw yàlla tere fu mu koy jëlee fu muy jaar. waaw mais ñu ngi koy parane. fu muy jaar mais ci yoon bu legal bi. waaw doo ñu may nga jaaroon ba dugg. Macky Sall yow bu ñu la waxal ci lay wax yow. non Sall. dafay hmm. def lu baax wax fi lu baax. Hmm. ban jël ko fal ko pale yóbbu ko. mais pas koo xamante ni yàqkat toj cocktail molotov. bertière bi osan sàcc yi. mais du leen jox suñu réew mi ñii lekk ñu naanuñu sax ñii boo leen xoolee xam ne ñii boo leen joxee réew mi ñu taal ko sëñ bi. da ngaa wax dañoo xiif non non ñooñu ay cadre la ay borom xam-xam. ban cadre borom xam-xam yi ñoo ko war a. non non non respecté Sénégal kii ban booy bi ban xam-xam la fi war a am. ban xam-xam la fi am fii la jàngee impôt waaw waaw impôt doo ñu may. du seen seen patron. boobu di cadre Ousmane Sonko ngi nii nekkoon impôt te teew tëj nañ ko ci kaso bi. waaw parce que lan fenkat la sàcc loolu la. léegi Amadou Ba ngay défendre pour lan la. mais Amadou Ba président Macky Sall moo jël teg ko ci réew mi. Mhm. président mi nga xam te ne eh, liggéey na réew mi nam ko waree. def fi lim fi war a def. Hmm. moo ne leen nan topp Amadou Ba. mu looloo waral ñu topp Amadou Ba te Amadou Ba wax dëgg yàlla njàngam xam-xamam may na ko yaram may na ko na may na ko noonu la kaa bi demee amul leneen. Hmm. ñun président ki mu ñu toppaloo kooku dañuy topp te moom lañ bëgg koo xam ne nii 3 millions euh, parrainage. Hmm. ci ay fan nga am ko. kooku day moroomu gone. Ah,